xalif général des Baye Fall Serigne Cheikh Jëmb Fall ak mboolem njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gi seen jëf kawewaat lool ci wàccaayu tabaski 1442 ginnaaw gàddaayuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppook 2021 mu yëkkati lu toll ci junniy xar ñoo jébbal ko ki nga xam ne mooy xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou lii nag di liggéey boo xam ne du lu ñu sos ginnaaw Cheikh Ibrahima Fall ndax moo ko daan yëkkati daan ko jox Serigne Touba loolee la njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gi di wéyal ba léegi ki nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba at mu jot nag limu xar yi day gën a ci camion yi ci la ñu def xar yi ñu ñëw indi ko fi nga xam ne moo di ci Daarul Minaan ci njiital Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng ak mbooleem njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gi ñu jébbal ko Cheikh Mamadul Muntaxa Mbacke Bachir jaayantewaat ak moom fas yéene taxaw temm teg seen tànk fa nga xam ne fa la ko seen maam ju tedd ja tegoon muy maam Cheikh Ibrahima Fall di liggéeyal Serigne Touba rek. nee Serigne mu yokk sa dund gi ca dolli sa sa wér gi. ndax taxawaay bi ci yoon wi ñëpp a ko rafetlu. ndax sa taxawaay ci yoon wi ñëpp a ko rafetlu. sa taxawaay ci lislaam ji ñëpp a ko rafetlu. nee na sa taxawaay ci lislaam it ñëpp a ko rafetlu. kon nag ngi sàkku. nee kon ñun ñoo ngi sàkku. ñaanal Serigne Cheikh jëmb. nga dollee ñaanal sa taalibe sa murit ba Serigne seex Fall jëmb. soxlawul dara ci àdduna lu dul liggéeyal la. ndax moom dey ak bëggam lenn rek la ci àdduna muy liggéeyal la. la maamam defoon rek bëggul lu dul sëriñam ba di sëriñ Touba loolu rek moo ne ci moom. nee na la maamam ji defoon amul génn bëgg gudul sëriñ Touba moom rek a nekk sëriñ see jëmb faal. kon nag noo ngi ñaan ci sa barke Mbacke. nee kon ñi nga ñaan ci sa barke Mbacke. nga ñaanal ko ba mu yàgg fi te wér. nga ñaanal sëriñ Cheikh Jëmb Fall mu gën fi yàgg lool ci sunu borom dolli ak wéram. ànd ak dongam yii bëgg a liggéeyal Cheikh Ibrahima. ànd bëgg a liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall. bootu ci ginnaawam. nee bootu ci ginnaawam. di rak. nee na di rak. di taalibe. di taalibe. di doom. di doom. nga ñaanal leen. nga doon leen a ñaanal. ba ñu mën laa liggéeyal. ban mën laa liggéeyal. amul ci jenn yitte nag. amul jenn yitte. wala genn bëgg. wala genn bëgg. lu dul fas la yéene liggéeyal rek. gudul fas la yéene liggéeyal. loolu la sëriñ bi bëggoon. loolu la sëriñ bi bëggoon. nga ñaanal ko ci. nga ñaanal ko ci. ba mën a am. ba mën a am mbàkke te bir na ko ni te wóor na ko ni loolu mën nga ko loolu mbàkke mën nga ko ginnaaw bu loolu wéyee nag ne ginnaaw bu loolu wéyee noo ngi sàkku ci mbooleem murit bu fi nekk noo ngi sàkku nag ci mbooleem murit bu fi nekk te bokk ci Cheikh Ibra te nga bokk ci Cheikh Ibra Fall Fall. nga ñaan ci darajey Cheikh Ibra. nga ñaan ci darajey Cheikh Ibra Fall. sëñ Muntaxa yàgg fi. Cheikh Mouhamadul Muntaxa sunu borom gën ko fay yàggal. te ànd akug wér. tam ànd akug wér. loolu ñaan ko murid ñi fi daje. sëñ Saliou nee na mi ngi koy yalwaan ci bokk murid yëpp na ñëpp commencé wax loolu sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi gën a yàgg. ci ànd akug wér. sëriñ Saliou mooy yalwaan loolu. neen loolu lay ñaan nan ko ko ñaanee sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng yow muy bopp yoon wi nga ñaan ak sa rakk yii sëñ Daara Fall ngi sa ginnaaw Serigne Assane Fall ngi nii Serigne Cheikh Assou Ndiaye waaye ak seen njaboot gi Serigne Fall loo ngi nii mboolem njabootu Cheikh Ibrahima Fall gi nan bokk sot Serigne Mountakha suñu borom tungoon ko yokk ko fanam wi ba fa mu yéene yóbbu yoonu maama mu yeggale ko fa ñu fa mu lislaam mu yóbbu ko fa ci doole Serigne Touba Cheikh Ibrahima Fall liggéey bi fi indi mën na ko kiri yónni mën na ko yoonu murit mën na ko sas nañ ko yoonu murit nan la fi fekkaat at yu bëree bëri sa borom dolli sa wér gi ak nga àndal ñëpp wax ji nag du mën a gudd nee wax ji nag du mën a gudd ndax sama xol daal di fees ndax xol yëpp fees na dootul ma mën a wax. nee dootul mën a wax. jërëjëf Mbacke. jërëjëf Mbacke. jërëjëf Mbacke. kon tàllal leen suñuy loxo sëriñ bi ñaanal ñu ñu dem ak jàmm ñëwaat ak jàmm ku ñu génne nag yeewal am xar bisimilah waaw muy waaw. murid yi sëriñ bi nee na li nekk ci xel mi nekk ci xolom du lu mën a wax waaye mi ngi koy seere ne mi ngi koy seere bu baax sunu borom mi nga xam ne dara ump ko di ko seereel Serigne Touba muy borom liggéey bi muy jërëjëf jëf tàllin seeni loxo amiin Mbàkke Bàlla amiin Mbàkke amiin Mbàkke Bàlla allahuma amiin amiin Mbàkke Bàlla liggéey bi yegg na fu mustu yegg waaye na sa fan wi yegg fu aw fan mustu yegg liggéey bi Seex Ibra bi yegg na fu mustu yegg waaye na sa fan wi yegg fu aw fan mustu yegg ki doole Seex Ibra Faal bàyyi nan de Seex Ibra rek amin Mbàkke bal amin ñu bokk raayoo ginnaaw ziyaara bi mbooleem xar yi yóbbu nañ leen ca daara isbu tarxiya ngir ñu wàcc leen foofu ci ndigalul cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir ndax at mu jot ñoom lay dénk liggéey bu ni mel ngir ñuy saytu aka toppatoo mbooleem xar yi nga xam ne moom la ñuy indil sëriñ bi ci tabaski gi ñoom nag ñu ci def liggéey bu am solo at mu ne lépp rekk di liggéeyal sëriñ Touba.